mu def album international bi moom ñeen yéen a am yéene jox ko ci disque d'or mais vision Wally sekk ak ñi mu àndal ak ñi ko bëgg te yàlla tax te gëm ko seen vision romb na disque d'or ñu ngi ci yeneen di level la ñuy nekk mais nag album international bi ñu bëri jàpp nañ ne sax disque d'or bi moo tax Wally génn ko d'accord ci la bokk disk plating ci la bok yenen yenen ci la bok mais nak daf ko def pour nek international international nak li la koy may moy nga am album international américain yi di sétane français yi di sétane seetaan yi di sétane seetaan ñeneen ñeneen di ko seetaan dama la wax sama ben xaritu américain bo xam mi ngi États-Unis sama ben rak la bay Cheikh ñi wax ba ci yag mu ni ben américain de mo won ko ki wali bi quoi di ko laaj ki kan la affaire yoy non c'est des ko c'est important loolu lañ la won am déet tey ñu ngi dem ba américains yi di reconnaître waali di laajte kii kan la ndax li mu way dafa neex mooy way woo mu way rek xaw ma nu mu koy waxee sax xaw ma am na nu mu ko way yee yee yee xaw ma am comprendre muy way bu neex boo xam ne tey dugg na américain boobu te américain boobu jéem na xam waali gëstu na ko kooku leeral na ko kuy waali mu dugg ci internet bi xam ko tey loolu lañu soxla ci album international mais pas ay disque d'or album bi dañ ko génne déedéet disque d'or yéene la ñu am ñun perso ñun personnel ñun nga xam ne. waaye waale ci disque d'or. dama ni la waali waxuma la xaaru ko de dama ni la vision ak ñi mu àndal. ak ñi ko gëm romb na disque d'or ñu ngi ci yeneen level. comprendre nga. Mhm. pas ay disque d'or disque d'or yéene la buñ ñu am pour jox ko ko ci euh, album international bi mais suñu capacité yi romb na foofu te ci kanam ngeen ciy xam dara. Hmm. waaw. sunu sunu kii weesu na foofu waale du nekkul day disque d'or yi weesu nañ foofu ñun ñu ngi ci yeneen disque d'or bi yéene la boo xam ne am nañ ko te da koy am indi ko fii disque d'or du dara trophée la rek na ko ñëpp yéene ñaanal ko jàmm. trophée la rek trophée la boo xamante ne yow ko am de parce que dafa moom laa lay wax nag waa léegi yow waale kañ ñëw 2009. waay la commencé way mm-hmm. ñaata musicien ñoo nekk ci réew mi yan année lañ commencé way ah. yàgg nuyu sunu sunu papa bi doon féete 30 ans Aline Mayndeer. di nuyu di ko ndokkeel ñaata at la def ci musique bi. 30 ans. mos nga koo dégg ba mu dalee way ba léegi ñu ni génn album international pour bokk ci disque d'or. pas encore. ma ngi noonu waaye bu Wally mii ñëwee 2009 ba 2023 ñu koy tudd di tudd disque d'or mais loolu gàcce ngaalaama. te xam ne ay papa ma fi woon ay magam ma ngi fi di joganteen moom te mënuñu ñu leen tuddu di tuddu disque d'or tay ñu bari dañu dugg tuddu disque d'or grâce à Wally nañ waxtaan deug te yalla tax liko may lolu nak moy man na way xolam rafet na yene ni ñepp te limu nekk diko def moy gëm nako te man ci demal ak gëm yalla man ci dem demé at pass pass te lolu mo am solo nit ki ci li nga nekk dem ci at gëm suñu dem ci at pas-pas suñu borom fekk la ci jàppale la ci loo ñaan suñu borom defal la ko ci parce que suñu borom ci boppam mooy xam ne yow lii nga nekk gëm nga ko nekk ci li ci desam mooy gumba luur bul tontu bul faale yooyu bul moom te moom sax nekkul foofu heureusement que nekkul foofu moom kay am nañu voilà na li des nag loxo yàlla la li ci des ci loxo yàlla mooy ngeen ñaan voilà li ci des nag mooy ci loxo yàlla la mooy ngeen ñaanu ko suñu boroom defal ko tawféex tey loolu loolu ko d'or walina len ko indil fi ci rew mi ma leen ko wax lu fi ci sey musul indi. tout temps ci sa bir wax dañuy dégg nga nan walé sék moy baye musicien yi. wax jot dañuy nan fan nga ko tek moy sen papa nak il est le meilleur. yu Ndour nak yalla defal nako jamm ñew na ne moy roi di mbalax han ki ñew ne nan chanteur di peuple kon jeex na. golden boy de la musique. kon jeex na mooy seen papa. Hmm. jamono ji képp koo gis koo xam ne laa la wax de mu ngi yor micro nii di way ah waa lay sa père nag. nga nangu ko ñëpp ñëpp nga nangu ko ak nga bañ ko waa lay sa père. wax nag wax naa ko pare ci dara ku mu neexul baax na ku mu naqari nag ci temps foofu. lii lu micro la ci wax micro képp ku ko yor di def nii di way. Wally mooy sa père ci musique bi mooy sa papa ci showbiz bi mooy sa roi ci lépp looy def ci yëngu ci musique bi ak ci showbiz bi c'est le roi mooy président bi kon jeexal na wax te gars yi musique te artiste mooy président de <laughs> ay ñoom Pape ay ñoom ñeneen artistes yi fi nekk euh, bëri nañ bu ma limee dañoo ay ñoom Viviane ay ñoom ñëpp nangu nañ ne Wally mooy président de la république de tous les musiciens Sénégal déggoo ma ne la ñoom ñëpp nangu nañ ne Wally mooy président de la république tous les musiciens du Sénégal ah, waxuma nag ay ñoom bu leen ay ñoom yu sunu ñooñu xam nga génn nag ci showbiz bi voilà voilà comme génération bi jamono ji nga xam ne ñoom lañ nekk di dawal muy 2023 te nekk di jëm ci kawam mm-hmm. ñoom ñëpp nangu nañ ne Wally mooy le président de la république donc waa nekk président de la république xam naa ne Sidi Diop mooy nekk premier ministre. non non ñoom ay ay ay ay yeneen parti lañ yor parti yoo xam ne comme lu ci mel ne parti Pastef comme lu ci mel ne yeneen parti yi ku ci nekk ak sa parti bopp. mais nag ñun moom suñu gouvernement bi teg nañ suñuy ministre suñuy député ba pare voilà li ci des nag ñoom nañ fexee jogante fexee nekk. président wala ñu fexee nekk leneen mbir mi loolu la campagne la rek nañ campagne bu baax a baax te xam ne nag leen dese bëri na. yow ban ban poste <laughs> député député waaw député la. député maa ngi biir ensemble. kon nekk nii ku bëgg a. di président député yëpp nag. xam nga député nag porte parole la. Mm-hmm. maanaam soxla yow lañ koy wax nga jottali ko waaw noonu la demee ci assemblée bi. ci assemblée bi waaw. lépp loo xam ne faramaare yi am na lu leen naqari. wala war nañ ko kaas man maay génn kaasal leen ko ànd ko sama élève yi nga xam ne lim naa leen sànq ñoom it ñu jot ci kaas ko comprendre nga su fekkee tamit am na lépp loo xam ne neex na leen mhm. loo xam ne député bi moo ko war a jàll da koy jàll mais quand quand quand nag euh, porte-parole du loolu Omaro la lépp loo xam ne ci gouvernement bee waali la war a génne communication ba fa war moo koy def ndax man moom nu ma porte-parole kenn ku yàlla bind hmm. waaw mais député nga rek waaw moo tax solo nga grand bu banaan bi de mu rafet léegi daal li bees mooy ngeen ko ñaanal suñu borom may ko ko ay yéenewuma koot yéene naag koot yooyu yëpp amul sens mbokk artiste bi xam ne dañ leen di tàllal micro ne leen nañ wax ci disque d'or ñu waxuñu ci alors que disque d'or tey bu ñëwee Sénégal ndamu Sénégal la parce que seen waa lañ koy def li léegi buñ ci waxee buñ ci waxul lu ñuy wàññi ñun dañoo dax kii di kii ne woon Boucher Ketchup force na ñaanal waa li disque d'or ñëw boucher li nga wax ni la ko waxon ne ko suma ñaané ak suma ñaanul bu ko waré am da koy am. wa loolu mu am mu ñaan kon bu ñàkkoo ñaan loolu amul sens xam nga tay ji li yalla bind. ne 2023 bi jëm ci kaw am doomu aadama mënu ko koo fexee tere am. li wara ñak doomu aadama mënu ko ci dimbali mais dafay rafet bu ñu ñàkkalee micro nga wax ci doomu aadama mënul fexé ba du ci am gis nga ma wax la ben affaire disque d'or il fallait que gars trophée la trophée la lay jox mais trophée bobu bu ñu la ko jox da ngay yobbu sa drapeau rew sigil sa rew parce que tay bu wal demé ba jël disque d'or mm. wala mu jël disque platine mm. dan nan sénégalaise bi dé jël na nangam nangam turam nan la Wally Ballago Seck fu dëkk Sénégal mm-hmm. ah fan la dëkk ci Sénégal capitale bi Dakar tay li ku am ndam musique Sénégal mo am ndam ndax tey télé yi bu demee ba di ci débat feneen feneen di ci débat bañ dem ba ay ay ay France 24 ay RFI di jël doomu Sénégal boo xam ne ñu ngi koy invité ci mbirum musique bi mu nekk kon tubaab bi ñu ngi bàyyi xel li doomu sénégalais yi di def trophée la boo xam ne da koy jëlee indi ko bu ko jëlee indi ko nekkul lu muy lekk nekkul lu muy naan nekkul lu muy njege naa yow lu muy teg la mais tur bi li ci am solo mooy sénégalais nekk na disque jël na disque d'or mooy artiste léegi mooy artiste bi daa xawee ci àdduna bi nangam nangam loolu day am suñu borom moo koy def ci jàmm bi te nattoon nañu ko ñun waali ñii lañ ci tombeel suñu borom teg na ko ko dañ ko nangu nga ñaan ko mu am ko nga ñàkk ko ñaan mu am ko yooyu yëpp yëpp yëpp suñu borom noppi na ci pare bu ko amee suñu borom ma ko dogal bu ko amul suñu borom ma ko dogal te ñun nag lépp lu ñuy def wala waale lépp lu muy def da ci ànd ak gëm yàlla wóolu yàlla doyloo yàlla moo tax lépp lu mu sóobu suñu borom dimbali ko ci ndax xam na la xam nga lan moo waral loolu suñu borom sax xam na ne kii nga xam ne mooy waali gën na ma doyloo na ma te wóolu na ma. te waaw mooy li la wax rek te wóolu na ma te kóolute gii mu am ci man gën gii mu am ci man doyloo gii mu ma doyloo xam ne man maa ngi suñu borom te maa ko sàkk. comprendre nga bu ko neexoon def lu ko neex mais day jël lépp dellu fële santaat suñu borom mi nga xam ne moo ko jox lii mu am tey. tey ay nit dund nañ fi ay at li waale am mënuñu ko am 2009 la ñëw 2023 def def na fi loo xam ne ci musique ay at ñu ngi fi def defu ñu ko fi nag yow tamit. mais gëm-gëmam ak xolam bu rafet ak daylo suñu borom moko may lolu yene ñepp jamm mo de mu xëy wali da ngay toxawon mom sax ay nit ñew mu génne ci poste bi yor li mu jeex yene nit ñew mu woo ci pet na la ndax yoro dara. nga yor jox ko mu jël nonu jox ñeneen lolu kan moko fi def fi da nga gis ko fi def. da ngay gis nit ñew ni tay amna artiste yo xamne sax da ngay gis maire yi nekk seen bundu kër dañuy wacc seen auto rek dem seen yoon. wala ñu dugg seen autorité dem maire yi ñëw dina maire da ngeen a sonn waaye dem leen seen kër bëri fi mais wax la mosuma gis mu jànni doomu aadama comme ñu ñëw ni mën a noo sawaay nag tey moom mooy loolu déedéet même bu yorul dina maslaaxa at yow teg la ci ay argument yu leer naññ yoo xam ne sa xel sax dina dal boo tëddee di nga mën nelaw tranquille moom mu dem kii di Pawlish doon na ko kaan nee na ñibbi almadi wéet na non almadi wéet na dëkk bee wéet il faut tamit waali xam benn affaire président warul xam benn affaire. dafa am sunu borom bu la defalee dara. ci benn réew boo nekkul ci réew mi ñëpp koy yëpp maa ngi jéggulu ci kàddu gi day mel ne genre bekkoor buy am ci réew ndax dafa am centaine de personnes yoo xam ne ñu ngi yaakaar ci moom. ah waaw bëri na fi de. am centaine de personnes yoo xam ne ñu ngi wéeru ci moom tey bu fekkee ne ki nga yaakaar wéeru ci moom toog nga benn un mois gisoo ko amaana la muy defi sax te la nga xam ne ci moom ngeen ko yaakaare moom la dem liggéeyi pour mën leen cee jox waaye day xaw a metti ci ñoom tey beneen bi mooy dafa am ñoo xam ne boo leen xasee ba tàmmal benn affaire muy comme comme yi nga xam ne moom lay def ñu toog benn deux mois gisatuñ la ñooñu day dem ba seeni laaf tooy dañu bëgg di génn mais suñ xalaatee ne kii nekku fi rek duñ bëgg a génn te réew mi da toll foo xam ne gars yi baalutuñ kenn ku dul waale waali kese la ñuy baal yow mii gisoo dematoo soirée kenn bu dul waali kon bu fi waali nekkul dootoo mën a génn da ngay xalaat a tëju moom it na xalaat ne ñi fi bàyyi sonn nañ ci xaar bi. président fans yi tamit sonn nañ ci xaar bi. na jël avion bi. bukki ñu yónnee ko benn jet privé léegi léegi mu jëli ko indi ko. non day ñëw xam naa police tey wax na. nee na gouvernement bi sax dañoo dafa am ñu sonn. non gouvernement bi daa bëri ñu sonn. yëpp ni am na ñoo xam ne dañoo jaayi marché ba am ñoo ñu ngi ñu bëccëg ñu ngi cak-cak kon Wally Seck gaawal ñibbisi ah, a ñibbisi yi na mun nañu ko ah. <laughs> am na lu yàlla may bu fi nekkul sax da gis asamaan si day mbóoya dëkk bi daal day show am actualité publique. daa gis nga journaliste yi seen poche fan yi dañoo xaw a tey gars yi dañoo war a fay salaire ah. journaliste yi dañoo war a fay euh, salaire yi ku ci mel ne temps ku ci mel ne yeneen site internet yi ay Dakar live ay Seneweb dañoo war a fay salaire yi te ñoom li ñu am pour di ko fay salaire yi yaa leen koy jox mi actualité